te boo sifflé arbitre bu sifflé nga taxaw dëggal sa boobu jàmbaar barki alxuraanu karim doo ko dooleete. ah baax na duñ def deux minutes ma ak yow. yow fii da nga bëre yow sa combat mi nga mujjee bëre da nga yàgg dof. ñaata minutes munoo daan. xam-xam dama jàng ji bëre. ñun dañuy ñun dañuy bëre. waaw. waaw maa ngi woo monsieur le maire maa woo. maa ngi woo monsieur le maire Barthélémy Dias ah. di woo Alpha Baylo Gueye di woo monsieur le maire Aline waaw bëreegu ma raja kala sama kanam jaru sax nga lay bàyyi xel man su ma tëddee damay nelaw damay lekk bu baax te arbitre bu sifflé arbitre bu laa la wax arbitre bu sifflé moon la maa mën maa la doole waaw incha allah daa ngi ci combat Cheikh am na combat ci océan balaa nga ko traversé. ah. mais bëgg naa la. waaw Balla kii xamul sax si lu mu dugg. barki Seydina Mohamed. waaw ginnaaw bu ma sant yàlla julli Seydina Mohamed di sant sama ñaari waajur. di ñaanal sama yaay fu mu tëdd yàlla na ko gën fu mu jógee ak sama papa ak ñu ma fekk ñëpp waaw di ñaanal tamit suñu père tamit fu mu tëdd tamit yàlla na ko gënal fu mu jógee waaw. di ñaanal waa Saloum ñëpp tamit jàmm ah. waaw dal jàmm waaw. di ñaanal tamit waaw. sama yaay ji waaw king boisson xam nga ñun chaque jour moom la ñuy naan moom rek lañ xam te aussi bi passé dama seen naan bay bëgg a dee billaahi dama damaa naan ba maa tëdd nelaw lañ maa yee ni ma jugal billaahi wallaahi ñun moom rek lañ xam waaw sa kaw sa kanama maa bëra ngel joon mhm. sa dégg naa ko mu taxaw di wax rek naa ma océan soo taxee ma lay dóor wala lay daan defe naa daa xamul ku muy waxal borom dóor mu daanu yi man la billaahi wallaahi waaw ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur di sant sama sant waa Réfone bu baax a baax waa Grand Médine waa Lambaay waa Njarnu waa Nderek di sant waa Ñaakorop sama dëkk sama yaay mi ak sama papa di woo waa Ñaakorop gi ma jógee di ñaanal caatu parcelle yàlla may ko waaw ki moom lu ma koy wax bëriwul. combat bu mag la. voilà noonu la demee nag ki bambara bi lay tasanteel de bambara bi dof bi. barki arxuraanu ko di nuy sama mbokk bambara bi yëpp waaw. waaw maa ngi nuyu sama mbokku bambara yëpp waaw di nuyu tamit sa mbokku waalo waalo yi waaw di leen béggee bu baax. loolu dafa top 5 dóor mu daanu lool. top 5 dama koy delloo place am. kaaw yi dafa bari ci. dama koy delloo place am sekku moom moom sax bëre. <coughs> billaay wallaay sekku moom sa sax bëre Baye Balla. Baye Balla six combats laa bëre. quatre victoires da defee trois kaaw laa am. trois kaaw kii fi ma jaara ay moroom laa koy jaarale. moom mi ngi wax rek. billaay wallaay guy rëy na waaye amul njëriñ Baye Balla man damaa mën a bëre. te bu suur baa naa ko jàngal bëre. bu suur ba jàngal la bëre. Baye kii su ñëwee si wàllum bëre mun naa ni day xaar ndax ñun mun naa ni bëre su ñun la fekk baax barki alxuraanu karim billaay wallaay kii su nekkee su nekkee bëre rek su ma ko ëpp ma ko maa dàq bëri maa ko dàq xeex. waaw naa jàngal bëre nii daanaka. la wax dalal ma ñëw doo déglu su may wax. amul wax de mm, déglul Baye Balla kii maa ko dàq bëre maa yoon xamal lañ gis man sama combat bi passé dóor mu daanu lañ gis billaa wallaay taala su nekkee bëri fii la buujoo fukki junni yoon yàlla xam na ko bàyyi baa la ñu jàmmagal lañ dëgg de fu ñu dëgg tàppet ne fa de waaw di waaw di nuy waale sama mag Siteu di ko wax combat bu mu jëm moom Modou Lô yàlla na ko yàlla may ndam roi des arènes waaw daa war a dugg biir jàmm gën te yàlla nañu ko yàlla defaral. arbitre génn sa diggante ak top 5. man bàyyi baa man ku ma xam xam nga. nee te foofu lay jaar. li daa jël combat bi xam ko barke Seydina Mohamed xam kañ laa waroon a bëri Baye Balla la set bi passé laa waroon a bëri. combat bu ma jox mu yàqu. suruma as di woo may ñëw CNG bi laa walaay boo sama place su liggéey laa jógee fekk ko fa. muñ gànd gànd lu nii funki funki te kii bu surbaa dinaa ko jàng bëri maa ko man maa ko doole maa ko dàq xeex fu dàq ko bëre. man bawol laa dëkk ca àll ba fa ñaay ba. fa ñuy bayee gerte gi dugub bi fa laa juddoo fa laa yaroo. bi laa walaay kii ma la boo yëpp laa doon daan ba pare naan ci meewu nag wi kon boo kii maa ko doole fuuf. bàyyi wàll ñun jaamu gën lañ dëgg barki arxuraanu karib ñëw rek màgg nii rek ñu dem leen bëre ñu ne ñoo nekk xale barki arxuraanu ko di bëre si te dañu tëggal mbapat ñuy rayante di bëre di jël ay drapeau dina def di def lu ne dina mu waalo barki arxuraan di bëre di daan di ñëw kon mun naa ne kii su nekkee day wax ay waxu bëre moom moom nga koy bàyyi mu wax lu ko neex ci loolu mais su nekkee bëri rek déglu ma moom abat dégg naa mu naan ay la set la waroon bëri la set la man la set laa waroon bëri maag 2S daa daw dem jël keneen moom adversaire am daw moo tax ñu boole moom man trois adversaire daw nañ ma. moo daan la set ngel joon laa bëreel. Ngel John amul kenn ko sañoon Ngel John bari adversaire yoo xam ne ñemewuñu jël avance. jël kii dama koy arnaak barke alxuraan kii dama koy neexal géem neexal ko si teg bësal bësal bi. maa la ëpp doole maa la dàq bëre fukki junni yoon. ma la jàpp nga xam ne a ay guy rëy naa guy li man xale bu ndaw laa billaay maay sama caatu yaay barki alxuraanu karim ñu may àndal a ngi nii maay sama caatu yaay baay baabal la billaay wallaay maa ko gën a nekk xale fuuf barki Seydina Baye Fall di profité waaw du nuyu tamit sama gars yi may àndal entraînement suñu waa écurie tamit bu si kaam baaw du nuyu tamit sama këtu tooma ay ay waa ak seex maa ngi leen di bëggee tamit bu baax dañ may teg lu metti billaay wallaay dañ may teg lu metti metti waaw di leen bëggee tamit di leen woo tamit si combat bi waaw di woo waa jàmm gën bloc 16 bi di woo Jaara Sarr moom laa toggee lamb ak V Marigo di leen woo di leen di leen woo tamit si lamb ji si boppam di woo Vega di woo tamit àlla waaw di woo Père Ndiaye di du woo jàmmagan bi yaa tout ah am na lépp waaw Baye Balla ñun ragal ñu fu ñu jëm de maa ngi soog a bëri spécial kon kii yoon mu may jaar moom du ma ko xañ da nekk ci yoon maa nekk ci yoon damaa rende ba àgg fii nii dégg nga de da ngaa tardé billaay wala ngaa tardé di woo waa Grand Médine baax a baax baax a baax di woo waa Grand Médine di woo waa Bawol xam nga waa Réfane sama dëkk waa Njarno waa Ngangu ne aw ma seen fay Baye Balla il faut nga limal ma liste bi quoi ñi may woo ci làmb ji Baye Balla. bilaay walaay. mbaa bariwul rek dama mbëru gox laa Baye Balla. waaw na ah. euh, top 5 nee mi ngi woo Mass Mbayang Youssoufa Niang Ahmed Dieye Mbayka Grand Médine Baye Ili Baye Fall Soaibou Faye ah Gora Sène Fallou Faye Ahma Ngom Niang ah xarañ loo ñaa xarañ loo saaliw cag-cag awa faal ah lamin jaasi waa ñàkku rab bawol bawol yëpp nee na mi ngi leen di woo waa Grand Médine mafia cag-cag ah chauffeur taximan jibi faal fallu faal bada faal fc taala mbër daam njaay osb ah. nee na top 5 nee na mi ngi leen di woo booy sama sphère bi nag booy daa ngeen jëf kon xam naa incha allah bala 20 rek bu neexee yàlla. waaw nañ ko fa jaabaro yoon ci laa gis diire. Baye Balla léegi nag ñu jëm ci grand combat bi. Baye Balla waaw damay woo sama njaago or yi ah. Liss ñooy ànd dem entraînement chaque jour maa ngi koy woo di waaw di maa ngi leen di woo ah waaw di bëggee sama gaa yu ma àndal ñoom ak Amet waaw moom mu indi si otoom maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp. waaw di leen nuyu waaw di leen wax waa jàmm gën waaw préparé leen lamb ji samedi incha allah ngeen génn yéen ñëpp ma jàpp top 5 mi nii jàpp ko duma ko daan ko kon ko maa la mën maa la ëpp doole top 5 bañ daanu bëgg daanu da ngay daanu force waaw di woo écurie Sa Ndiambour ñëpp ku ci mel ni américain Albouri di woo waa écurie Sa Ndiambour ñi am combat ñëpp yàlla may leen dem Modou Lo day bëri dimanche yàlla na ko yàlla may nda ak ñoom digal ñoom